asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokk yi nga xam ne ñoo ñu jàkkaarloog ñun di ñu seetaan ñoo ngi am mbégte ànd ak ñoom fii ci kër Serigne siidi Mbacke mu Cheikh Abdoul Khadir ci bis bu tedd bi nga xam ne ci la fàttaliku Cheikh Abdoul Khadir ci bi ko fi suñu borom indee ci jamono te Serigne Touba Khadim Rasoul waxoon ci waxam juree ji kër sëriñ Sidi nag ko ne xam ne ne sëriñ Sidi léppam ci ndigal la ko teg ma kër sëriñ Abdoul Khadir ca wetu Serigne Cheikh. ginnaaw màggal gi nga xam ne bi mu ko bi ñu ko sosa ci tudde woon ko màggalu jiili yi ba di ko def màggalu sëriñ Abdul Xaadir lépp sëriñ Modou Abdul Xaadir ci loxol sëriñ Sidi la ko tegoon mu daan ko organiser loolu sëriñ Cheikh woyal ko waaye ku ne xam diggante sëriñ Sidi ak sëriñ Amsatou Mbacké mu Cheikh Abdoul Ahad mu toog nii ànd ak ay bokkam sëriñ Modou ak sëriñ Abo waaye feggoo ak sëriñ mamoor ñu ñëw ci kër gi nekkal fi sëriñ Sidi loolu nag la sëriñ si Amsatu di taxawee waxtu wu ne nga xam ne kàddoom mooy kàddu sëriñ Sidi ay waxam mooy waxi sëriñ Sidi kon ginnaaw kàddu yooyu rek ñu maase déglu Serigne Amsatu ci teewaay bi nga xam ne teewal na ko Serigne Sidi fii ci këram nekkal ko fi di taxawu lépp loo xam ne waroon na ko fi. salaamaaleykum wa rahmatulah sëñ Fallou Gallas ñu ngi am mbégte mu rëy ak bànneex ci bés bii di sunu bisu sëriñ di sunu bisu waajur njaboot gi di ko dundal waaye nag gannaaw bi ñu siyaaree ñi nga xam noo seq bis bi mooy njaboot si Abdou Khadir nga xam ni ñoom ñoom dañuy benn ndax suñuy waajur dafa nekkoon benn ba noppi ne moom yaroondoo màggandoo doon benn di bokk di ay xarit ku ne di ko màggal ci këram waaye sëñ Siid nag di ko xam ni ay magam dañ koo doyloo wóolu ko ndax jikkoom ju rafet ak mën a jaxasoog nit ñi ñépp respecté ko ñëpp jox ko seen bopp yàlla dogal nag at mu jot mu koy defee ci kër Sëñ Abdou gannaaw mooy baatu kër gi jiite taalib yi di ko dundal foofa ci sëñ Cheikh daan koo def itam ci ndigalu sëñ Modou Abdou Khadir bu fi sëñ Modou jógee sëñ Cheikh yeesal loole muy dal foofa bis bi nun nag liñ seq ak moom lépp rafet ndax man naa wax ni day man may moom waaye day moom itam may moom ma di ko nekkal fii ci këram bi lu nag ay at yu bare bare bare ndax moom itam naka nii ma koy defee la koy defee sama kër waaye wuti moom foofa dama fay ne mu ne fa fii nag dama fi nekk doon moom muy man nga xam ne damaa taxaw taxaw fii ñaari taxawaay waaw nag dama fay nekk moo Cheikh Bass la ñu yendu at mu jot bu yàlla dugal lii du ma ko mën ndax Cheikh sama xarit waaye da koy màggale këram waaye nag sëñ Sidi mi wóote gi mu wóote nag moo tax ma nekk fii nekkal ko fi muy lu neex njaboot gi yëpp bi ma ñëwee tam samay bokk rek laa fi fekk sëñ maam moo da ngi nii fi la koy defee sëñ moo sëñ Abdou Lahad ma nga ne fi la koy defee sëñ Abo moom ku yàgg di ko def la kon nag dañoo ñëw fii ngir dundal kër gi ngir jëmmi sëñ Sidi waaye ngir jëmmi sëñ Abdou melokaan yi jikko yu rafet yi nga xam ne makaarimal àll ak càng gi nekk sëñ Sidi ak mbaax gi ak mat gi ak yiw gi hmm, ak fonk gi nit gi fii ku ne eh, loo seex ak moom moo la fendi ndax sëñ si dafa yëg ñëpp ñëpp yëg ko ndax dañ ni eh, ku mënt leble te mën a fay bor hmm. kon dañ koy fay bor ndax sëñ si di xeebul kenn yitteem yëpp ki nit ñi la jëm kon nag bis bi nga xam ne bisu sëñ Abdou mu koy defal fee ñu ko fii dañ ci am bànneex bu rëy rëy ak mbégte mu rëy rëy di ko ñaanal nag ci kattanu Sëriñ Tuubaa ak waajuram mu teddoo yàlla yokk ko bu baax a baax defal ko ko sàmm ko sëñ si di mënumaa wax ci moom ndax euh, day sama lépp may léppam ah, hmm? waaw muy nit koo xam ni dong yëpp ko rek du ma waxuma njaboot sëñ Abdou Khadre rek de bokk nañ ko respecté waaye dongay sëñ Abdou Khadre waaye ak dongay yoonu murit ñëpp ndax euh, sëñ Mouride da koy wax lu bari nee na taalibe yi sëriñ si amuñu problème waaye taali taalibe yi amuñu problème sëriñ si ñoo am problème ndax nee na saa yu saa boo gis fu lu baax ak ku baax rek lay seet saa gis ci lay xëy di ci gont di ko ko wër dafa <laughs> moo koy wax <laughs> te loolu dëgg la ku gis ko loole nag dañ koo taalibe dañ koo gis ci sëñ Sidi moo tax duñ jóg fi moom duñ ko ñaar itam nag ndax euh, moom daal yàlla na ko yàlla lafal cat te dolli ko wér dolli ko maqaama dolli koy ngëneel nu ñii fi teew itam jëmmam ak jëmmi sëñ Abdou Khadre rek la fi teew te sëñ Abdou Khadre bari na yiw yoo xam ne ndax koo xam ne ba nga gënee àdduna rek nga commencé di ramm nit ñi ndax ka ka maam Thierno ma sëñ Tuwaay waloon dañu koo tasee ñu jéggal ko ba muy dem ak ba muy dëkk bi mu fi jógee bi fi bi sëñ Abdou Khadre eh, doonee mag itam nekk fi ñu ñu ñu wax ko muy imaamul imaamul aima yi nga xam ne mooy njiitul imaam yi di di jullee nit ñi di julli jumaa yi te nit ku mel noonu nag dañu ko ku julli ci gannaaw kuñ jégal lañ lay jégal kon seetal seetal yi ñu jégal ci sëñ Abdou Khadir ndax moom naka jekk daa tabax jàkka ci këram di ko jiite nit ñi dafa julli mu leen di mu leen di jëm jumaa ji tam ajjuma jot mu di fi jiite waaw ku dee itam mu jiite la kon moom lim fi nekk woon lépp la la la la la sëñ Tuubaa waxoon sababu xëy ba an allah araada an la minhu jaaha ak on a saafara <laughs> kon moom dafa doon ramm nit ñi ci kaw suuf kon nag bisam ñëwee ku ne war na cee tëbb ku ne war na cee sàkku barke te la ci waay sàkku am waaye nag nañ jëkk sàkku ak njégal ba noppi ndax njégalu àdduna baax ak njégalu àllaaxira ndax da indi nit ñi dañu ne ci kaw suuf yi leen di tooñ biir suuf itam dañ fay tooñ ñañ fa tooñ ñañ fa tooñ tañ fekk leen fa <laughs> nga xam dañ ñoo jiitu ñu sàkkoo ak njëgal kon nag mën nañ ko am ci bis Sëñ Abdou Khadre bi mën nañ ci am yërmande mën nañ ci am tawféex yàlla na ko yàlla defal te defal ko ak njabootam defal ko ay taalibeem defal ko ay turandoom defal ko mboolem jullit ñëpp xaj na ci kon daal ñu ngi ñaanal njaboot Sëñ Abdou Khadre gépp ak jullit yëpp ak taalib yëpp yàlla defal leen njéggal waaye defal leen yërmaande defal leen barke ci barke Sëñ Abdou Khadre asalaamaaleykum wa rahmatullah ndal li mun sidana wa daayi wa mun sidi sifaayi wa dawaayi hamdan li mun sidana wa daayi wa mun sidi sifaayi wa dawaayi man amara alhibaada bi duwaayi li yadfahu bi an ilbalaayi ثم على منع ثم استثمرت يبرأ بالعقل وفاس بالخرج محمد جبيبنا الحكيم عسكى سلام ربنا الكريم ولا لوسف سوي العلاي ما تاجس الأسلام للصفاء هذا وإن اليوم سوء أوجاعي مبتقيا عون المجيب داعي واسكي إليهما من الدرر هل مسني حتى أراني مهتدر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فاهدرنا بجاه خير العالمين الأكرمين ثم بيمن رمضان العصمي يا الله يا رحمن يا رحيم